الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتبارك الحركات وتضعف الحسنات وصلاته وسلامه على سيد السادات سيدنا ومولانا محمد من روحه قبلة الأرواح وجسمه كعبة الأشباح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 yéen ñëpp rekk maa ngi leen di boole nuyoo bi ñu yàlla boole mu gën a tedd gën a sell gën a sakkan doy walis bépp nuyoo te benn nuyoo mënta doy walis ko ma tibboo ko ci sama xol jëmee ko ci seen jëmm yu tedd yu sell yi muy asalaamu aleykum wa rahmatullahi euh, di dellusiwaat ci kartanal yàlla euh, fas yéene sof li ma doon sos ak yow ci waxtaan yëpp paase rekk ma nekkoon ak yow ci sëy ñëwoon ak yow ci wàllu labat ga ci wàllu xool ga ci xar-xaram ca ténk ya ci wàllu listixaar ga ci wàllu laaj ko ay dëkkandooram ak ñi ko jege te ñu maandu ba duñ yokk ñu nekk ñu maandu ba duñu wàññi ndax li ëpp ci nit ñi suñu bëggee duñu wax dëgg suñu bañee duñu wax dëgg bëgg ba duñ wax dëgg mooy luñ bëgg bu ëppee rek ñu yokkal ko lu fa newut waaye li ñu bañ tamit bu fesee rek ñi wàññil fa lu fa ne kon mbaax daal mooy koo xam ne bëgg du la teree wax dëgg ah, bañ tamit du la teree wax dëgg waaye am ci ñoo xam ne buñ bëggee duñ wax dëgg buñ bañee tamit duñ wax dëgg waxoon naa la ci aju ci laajte. information yu jëm ci moom ak ña ko jege waxoon naa la yónni koo xamee ne jigéen lay doon ku ko mën a riisu yooyu yëpp ñëwoon naa ci ba ñëwoon naa ci wàllu nawle moo xam kuf ut taam la wala kuf ul atam te mooy nawle gi mat ak gi gën a mat waxoon naa la gu mat gi rekk ñaar la ngay jullit muy jullit ngay gor muy gor rekk nawle ngeen gi gën a mat gi nag wala ca lu bëree bëri te lu jar bàyyi xel la loo ca sàggane gis ko ca sëy ba te mooy bokk raasoo bokk ay waaso seeni situation xaw a tolloo ngeen bokk place bu ngeen dëkkee buy ca kaw muy ca kaw ga buy ca teeru ba muy ca teeru ba buy wàcc am tamit na fekk nga jëlee fu gën a suufe yóbbu fu gën a kawe ndax li ëpp ci jigéen ñi ñu wàcc yéeg rek rawatina jamono ji jigéen koo wax ak mu ne la tabax ba mu kawe rek nga dégg ngay wax kon koo xam ne lim gëm mooy tabax ba mu kawe soo ko wàccee ca kaweem googa noona bëgg koo yóbbu fu gën a suufe tamit du sotti dana feeñ ca sëy ba dana la nuyu nak ca ngoro ga mag ñi dañ ko doon bàyyi xel seydi ahmed tijani sharif bi mu deme fas barke ba ñew wuy si ko ndeysaanam waa ya talibem ya nekkon fofa di borom mi barke jël seen doom yi jigen ya bëgg ko may doomi cheikh na tijani ya Cheikh na Tidiane ko xam boppam la ndax xam-xam yëpp ci ëpp doole mooy xam sa bopp ñaareel bi mooy fexe ba xam sa njaboot mu ne leen sama doom yi ay kaw-kaw lañ maak ñoom ñu nga dëkk fële ca àll ba dëkk bu ñu tuddee aynu yi mooy suñu rotuwaayu bopp ma nga nekk ca région bu ñu tuddee Laxwaat ca Algérie dend ak dëkkab àll bu ñu tuddee taaj mut kon ñun ay kaw-kaw lañu te yéen ñi faas ay teeru teeru ngeen su ngeen bëggee jël seen doom yi jigéen ñii xamuñu du dugin dundinu kaw bëgg ko may sama doom yi nga xam ne ay kaw-kaw lañu ñaar rekk a mën a am benn ñoom ñi loru wala yi wala ñoom ñi lore suñ leen yóbboo ca kaw ga sonal nañ leen kon lor nañ leen ndax xamuñu dund baag la ca aju suñu ñëwee tamit jéem a yéeg ak ñoom ci seen kawe googa te ñoom tamit yégguñu foofa ca waxin waawa ñoom tamit dañuy mujj loru bàyyi leen sama doom yi dem ci seen mbokki kaw kaw ya ca àll ba ñu takk fa ba mujj noonu la Cheikh na Tijaan yi def su ko defee kon maanaam loola lépp sharia da koy jàngale pour bëgg maanaam ñi gën cee mën a bàyyi xel ca wàllu woowa waxoon naa la ko ca sa yooyu nag boo demee bay takk sa nagulee ci kuf ut taam ak kuf ul atam takk koo xam ne xaar ga dëppoo na ak yow takk koo xam ne bi nga laajee xibaar ya ca ña ko dëkk moom wala ña ko jege wax nañ la ca lu la doy takk koo xam ne bi nga yónnee sa yaay wala nga yónni sa rakk wala sa mag wala sa xarit mu nekk ab jigéen ba ko riisoo lam la wax ci moom tamit doy na la ba mu gisee la mu mënta gis tamit lam la ca wax dëppoog naag yow na la wér na nag sëy boobu ci ñeenti ponk dong ci lay ci lay mën takku sëy ba doona mën a kon bi nga paree ngir takk sharia na le d'abord na nga takk ku takku ña takku mu limal la ko ci fukk ak juróom-ñaar ña nga déggee ke ngi takku ña mu ne tamit ba ngay takk ku takku seet ci koo xam ne man ngaa ànd ak moom ci nawle wante nga xool ko ba pare mu ne kon d'accord na mu des nag léegi gannaaw bi nga ci jubloo nag nga war a dem takki mu ne nañ ko takkee ci anam gu takku anam gu takku googa muy ñeenti ponk la say mënta wér mukk ci lu duhul ñeenti ponk ponk bu njëkk bi mooy say mënta wér ci lu dunul kilifa ñaareel bi say mënta wér ci lu dunul can ñetteel bi say mënta wér ci lu dunul seede waaye tamit sëy mënta wér ci lu dunul baat buy tekki may nañ la ñaareel bi ak baat buy tekki nangu naa li ngeen ma may ñu koy tuddee siixatu ci fuqahaaw yi ñeenti buñ dëppoo ci mazhabu Maalik rekk sëy ba wér na benn bu ci nekk nag ci ñett ya alquran tudd na ko siixatu ba ñu déggee ko ci li alquran tudd alquran tudd na kilifa kilifa googa alquran tudd na ko alxuraan tamit tudd na can alxuraan tudd na seede tudd na kilifa fankihuhunna bi izni ahlihinna tudd na can wa aatu nisaa sadaqaatihinna nihlatan tudd na seede wa ashhidu daway adlin minkum su ko defee nag yooya ñu déggee ci baat buy tekki kon lu ñuy seede rek am na kuñ koy seedeel kañ koy seedeel nag mooy kay ñaan ak kañuy may loola lépp fu ñuy fasee am na ku ñuy fasal kañuy fasal mooy ki nga xam ne nangu na liñ koy fasal ak ki ko koy fasal kon ci ma ci mantuuqul quraan ca ñett yooye ci lañu déggee ca mafhum siira ba muy baat buy tekki may nañ la yow tamit nga ne nangu naa li ngeen ma may kon sëy ci ñeent yooyu dong ci lay mën a wéree kilifa nag moo ca jiitu kilifa googu alquran dana wax ak moom ci lu bari di joxoñ kilifa ya nga xam ne ñooy takki sëy ya ñooy maanaam maye Euh, lañu ñu yilif ñooña alquran njëkk na leen dànkaafu ne leen su ngeen ni maye maye leen ku mayewu bu leen mayee seen doom jile wala seen mbokk mi le fekk mi ngi ci buum ak sëy jabar jàmbur kenn du ko maye ci waxoon naa la ko wal muxsanaatu ca waxoon naa la ko ca minal muminaat ñaareel bi booy maye bu leen maye ku nekk ci yedday jàmbur ku jëkkëram génn àdduna muy ténji ñeenti weer yaag fukki fan yi jeexagut kenn du ko maye bu kenn ñëw ci yow tamit di la gaaral di wax ba wax ja leer bu muy tekki ne yow moom ngay xaar moom tamit yow lay xaar ku jëkkëram fase muy yeddawu yedd ya jeexagut kenn du ko yëpp lislaam ma ngi cay dànkaafu kilifa ya bañ nag lañuy ñuy maye ñi bañ a maye ku mayewut ñaareel bi timit moo xam kooka di yeddawu ku yeddawu ci dereet la fase nañ ko feeg ñetti dereet yi jeexagut bul ko maye kooku alquran wax na ko wal mutallaqaatu yatarabasna bi anfusihinna salaasata quroo in su fekkee ku yeddawu ci weer la te mooy ñetti weer ci weeri weer feek ñetti weer yi jeexagut kooku bu ko mayee kay yeddawu ci weer nag ñaari jigéen lañ mooy ku ki gisagut deret ngir ak ndawee ñi fase ko wala ki gisatut ngir ak mage ñi fase ko ku mu ci ñaar ñii bu yeddawu ci weeri weer la yeddawu mooy ñetti weeri weer su fekke ne nak xamutoon wer yi diko ci konté ñetti fan wer yi fan lay yeddawu yi fan ba mu jeex mu defaat yi fan defaat yi fan muy juroom ñent fukki fan fofa nak gor ak kudul gor ño fa yam fasé nañ la go deren ngir ak ndawé wala tulo ngir ak mage gor nga kudul gor muy ab kuñu mom di ab amatu dib jébéer ñoo ca yem képp ñetti weer rekk lañuy ñuy yeddawu fase nañu la yaa ngi an loo ànd ak te mooy li ñuy tuddee ab ëmb kenn amul droit di la may lu dul nga teqalikoog li nga takkook moom la alquran ne wa ulaatul ahmaali ajalahunna an yadaxna amlahunna foofa tamit nag gor ak jéebéer ñoo fa yem àtte comme dafa ëmb daal yedda ja mooy teqalikoo li mu taqoo rekk ci gor bi ak ci jéebéer bi ñoo fa yem kepp su ko defee nag loolu mooy attee ñi bàyyi ko ci xel fekkee ku jëkkëram génn àdduna la ñeenti weer ak fukki fan loola nag buñ ko waxee mooy buy gor su fekkee safaan bala ñaari weer ak juróomi fan moom la alquran ne walladina yatawafawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arbaata ashhurin wa ashran foofa kon loolu la ñuy muñ bu ci tegu tamit su fekkee jëkkër gi dafa génn àdduna fekk mi ngi ëmb kon kooka moom dootul compter ci ay fan wala ci ay weer yeddam ja daal mooy teqalikoog ëmb ba rek même bu jëkkër ji génnoon àdduna tay tay mom timit gannaaw ba mu aduna àdduna avant kasangga sang ka sang mu am dom ci tay tay ci bis boba moy yeddaam ja jeex jeker manasi. bis timit bu gisé jëkkër man na sey fofa timit gor ak kudul gor ño fa yam atté ku sa jëkkër genn aduna nga embu sa yedda moy sippi li nga ëmb mooy teqalikoog li nga takko gor nga jeber nga ñoo am fofa foofa waaye bu ñuy wax ñenti wër ak fukki fan moy ko ëmbul Euh, lenn ci fuqaaw yi sax dañuy wax ne bu dee ab jéebéer ku ñu moom la yeddaam ja ca jëkkër ja ëmbul bu gisee wenn reegal rek ñu ne set na mën naa mën naa sëyi su ko defee nag su fekkee gisul reegal kooku ñaari weer ak juróomi fan moom lay yeddawu kon yow mii di kilifa gi war a maye ki ñu la yilifloo bul ko maye ci yedday jàmbur bul ko mayee mu fekk tamit mi ngi nekk jabari jàmbur ñetteel bi tamit bu nekkul jabari jàmbur bul ko maye mukk te fekk ki nga koy may duut ab jullit moo xam kitaabi yu la bul ko ko may di njaboot ak yonentu yàlla Moussa gi wala ñi njaboot ak yonentu yàlla Isa gi ñi gën di leen askanalee ci ay yahut ñii ñu leen askanalee ci ak nasaraan Euh, loola yëpp doonte ca làng wala maanaam duñ leen may soxna bu dee ab musrik la la muy jaamu téere musut caa wàcc moo xam jant la moo xam weer la wala nag la wala safara yeneen yu kenn xamut lay jaamu ngir ak ak mànkeem kooku tamit kenn du ko may jabar moom la alquran ni wala tunkihul musrikina hatta yu'minu kon foofa yàlla ngi wax ak kilifa yi ñaareel bi tamit yow mii di kilifa gi ah, booy maye sa doom jilee sharia jàpp na yaay kilifa ngir mar koo man maa ngi lay bàyyiloo xel ci sa yii man nga bank sa baaraam sharia tudd ko bul ci maye yooya sharia du ko daganal bul maye ca doom ci sa yëpp contrat sa yëpp contrat mooy dañu affecté waa ji ndakaaru wala ñu affecté ko ndar mu war fa am ñaari at wala ñetti at bëgg ñew nak ne may ma sa doom ji fi ak ñetti at wala par par fii ak juroomi at ngeen signé loola koka haram na ci mu ulama wi haramal nañ boobale sey ben xaj bu ñu tuddé ahlus shi'a rek ñoko daganal waye sey contrat haram na daganoon na nag ci njëlbeenu lislaam keroog ba ñu demee ba xaybar ci la ko yonent bi xaraamal ci ndigalal boromam ndax wa maa yantiqu anil hawa ñi demaat mu dagan mu demaat ba ci kanam ñi dem ba fatxu màkkata li ko dore foofu yëpp xaraam na ba fat fatxu màkka mu daganaat gannaaw ga nag avant ñi génn fatxu mu ñi génn màkka décret bi koy xaraamal wàccaat ba péncam yàlla dootul dagganati kon nikaaxul mutaati dafa xaraam shafii moo tax daana wax ne xawma ci lislaam lu daganoon ba ci kanam mu xaraam xaraamaat ba ci kanam mu dagganaat jàllar bi ko door a xaraamaat ba ba péncam yàlla dootul daganati mu ne man jànguma ko ci lislaam lu dul nikaaxul mutaati nikaaxul mutaati boobu li ko xaraamal ay xadis yu bëree bari la am na ci xadis yoo xam ne maanaam buxaari yu ak muslim yëpp ñoo dëppoo ca solo ko xadis ga eh, loola xadis la boo xam ne boo demee ci saxiixul muslim fekk ko ca nga fekk nga dem ca saxiixul buxaari fekk ko ca yonentu baa ngay wax ne naha an nikaaxil mutaati وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر كوكو ميغي بوكو حديث علي بن ابي طالب موكو جيلي تي يونتوبا صلى الله عليه وسلم بو ديمي تي بخاري اك تي مسلم ييب دانكو تي فك علي مو واخنا يونتوبي ترينا سيب كونترا كوم ني مو تري ليك ياب مبام ييغا خامني كوجو كير لا سو بوبا باخ لا دغونا mbaam mi dugg na fas yi tamit dugg nañu moo tax lekk fas ak baxla mbaam yi ci mazhabu imaamu malik dafa xaram waaye nag boo demee ca shafi'iyuna ya ñoom dañ ne lekk fas ak mbaam daganal nañ ko amal nañ ko ay tex ca seenam ngir waaye lu ci mun di xam daal xadis bi di xaraamal lekk yàppu mbaam kër ak lépp lekk fas yi seen yàpp wa ak li ñu tuddee nikaaxul mutaati muy sëyëb contrat ñoom ñooñu ñoom ñaar ñooñu ñoo bokk même décret boo xam ne moo moo wàcc ci ñoom ca xaraam nga ci benn jamono ji ca xaybar ñaareelu xadis bi euh, timit bi maanaam maanaam ñaareelu xadis bi euh, boo demee ci salmatubnu akwa manam mom andina hadis bi mune manam maanaam bi sallallahu alayhi wa sallam yolombaloon nañu nikahul mutaati lu man ñetti fan rek ci ama aw tash gannaaw si gi mu tereñu ko ci nga deg mu ne lana rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi mutaati nisaai ama aw tash thalathata ayamin thumma naha anha Euh, beneen xadis bi boo demee ci subratul juhniyu ah, mu ne yonantu bi xeex na moom moom sumratu moomu moo ne moom xeex na ànd ak yonantu bi ca fatxu màkkata ñi sax fa fukki fan ak juróom yonantu bi digal ñu ngir yàggaay ga fukki fan ak juróom ngir yërëm saxaaba yeeg sori giñ sori seen soxna yi ci diira fukki fan ak juróom mu yorombal leen nikaaxul mutaati ne mën nañoo takk soxna foofa ca màkka kuñ bëgg sa yëpp contrat euh, moo moo kon moo waral kon gannaaw bi mu xaramee ca xaybar mu ngi mujj daganaatee ca fat fatxu màkkata waaye gis nga xadis bu mu ne bala ñuy génn màkka rek yonentu bi xaraamalaat ko euh, boobu xadis subratul juhni yu moo ko wax moom moo wax ne annahu xaza مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال فأقمنا بها خمسة عشر يوما فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء وينك بحديث بيجيخ من فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل أفهم يجن دك بارك manam yonentou bi haramal na sey boba su ko defé kon nak yoyu len yuy tegtalee xaraam ak maanaam sëyëb am na ci yeneen i riwaaye nag yeneen yu ca wàccaat yu duhut yooya euh, bokk na ci riwaaye bi nga xam ne yonum tooy wax ne yaa ayuha nnaas inni kuntu adantu lakum fi l istimtaai min annisaai wa inna allaha xarama dalika ila yowmi alqiyaamati kon yonentu moko wax mu ne yéen nit ñi ma leen digaloon de ngeen def eh, manam banexu ci jigeen ñi tek ko ci contrat waye ma ngi leen ne sama borom haramal nako ci yeen ba yalla dotul daganati kon nak l'islam non lay deme yalla moy médecin wu médecin yi leg leg dalay jox garab nga diko utiliser ba ci kanam mu ne bayiko bu baxé timit baxatu ci yow nga bayiko ba ci kanam mu ne la nga ko jelat nga dem ba ci kanam nak mu ne la ko day am lolou moy indi nasku yi ci alquran motax mu ne nan sax min ayatin aw nunsiha naati bi khairin minha aw misliha gisulo yalla mo ñu joxon ben medicament wu julli jublu baytil muq baytil muqaddas ba ñu ñewé madinatul munawara ñi julli di fa jublu digre fukki wer ak juroom benn ñenn ñene diire fukki weer ak juróom-ñaar mujj gi rek yàlla tere ñu ko ne bu ngeen di ti jublu leen kaabatal musharrafa comme na ngeen ci daan jubloo ba ngeen nekkee màkk fekk gàddaay la gu leen woon su ko defee kon nag moo tax mu ne fa walli wajhaka shatral masjidil harami wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatrahu demeet noonu la noonu la bëree ci lislaam loolu nag mën nga koo xiyaas ki ji jamono médecins yi nga xam ne seen xam-xam sax dafa limité man ngaa dem ci ab médecin mu def loola analyse ba mu defee analise gis na jàngoro ji mu bind la benn médicament nga commencé di ko utiliser ba ci kanam mu ne la bàyyi ko mu bind laal la beneen nga jël booba di ko utiliser ba ci kanam ne la jëlaatal bi nga njëkkoon a jël waaw kon nag ñooñu nga xam ne seen xam-xam dafa limité wu euh, su boobaa nag comme ñooy def loola ñi si jël ñi si gis ay résultats yàlla mi nga xam ne xam-xamam limité wut aalimul xaybi wa shahada la kon dëgg-dëgg fu mu la joxoñ ne la defal loola rek maanaam nanga def loola waaye bul def rek la mushrikuuna yaag euh, munafiquuna yàgg yahuud yaag nasaraan yu mel noonu daan weddi naan yonantu mi daal kenn xamul lan la tey bu teyee mu ne weex na boo lëggee mu ne ñuul na te mooy foll yooya rek doon xew ci lislaam koo xam ne bu ne weex na yàlla ne tàll bu ne ñuul na yàlla ne kukku waaye bu ne la bu ne la weex na kay ma ne bu ci teg benn baat kon maanaam noonu day am ci lislaam texte yoo xam ne day dagan ba ci kanam mu xaraam euh, dootul daganati mukk am ci yoo xam ne dafay xëy rek euh, xaraam am ci yoo xam ne fay dagan haram daganat dor di haram lolou bokk na ci yi daganon ba ci yi nga xamé dafa haramon ba ci kanam mu dagan eh, ziyaratul qubur ci benul islam sa wajur genn aduna wala sa mbokk wala ku mundi don nga tim bamé lamba ne yaa koy ziyara dafa haramon mutlaqan bo ñu démé ba ci kanam nak ba nga xamé na ni yi nañ ci jaamu yalla ak wetal ko sop ko ba duñ jaawale ak yalla ak leneen wala ñuy jaawale ak yalla ak keneen bi nak ne ci sama ndigalal boromam lay waxe dagan haramonalon nañ ci yeen ziyara ji bammel yi waaye bis ni ki tay dem len ngeen ziyara ji bammel yi texte bi ñew ne kuntu nahaytukum an ziyaratil quburi ala fasuruha tere woon naa leen ziyaara ji bàmmeel yi waaye léegi mën ngeen a dem ngeen ziyaara ji ko ndax li ko waral mooy bokkaale ji nekk ci lislaam lépp tey ci wutale yàlla ay ndend ci samp ay xërëm di ko jaamu ba yonoon toog boppam ba muy ñëw màkk rek fekkoon na fa ñetti téeméeri xërëm ak juróom-benn fukk ak ñett ñi ñoom ñi gëmoon ne benn yàlla rek mënta xam soxlaay mbindeef yi soxla bu nekk ñu wutal ko xërëm ak boppam mu yàllaay boppam xiram goo xam ne dara du problème lu dul problème mu sëy ku bëgg am jëkkër foofa ngay sukk gannaaw bi nga ko waree ñaan koo torox la ko mu may la jëkkër am boo xam ne ku bëgg problème mu jabar am koo xam ne ku bëgg a liggéey am ci xiram goo xam ne ku bëgg a tukki am ci boo xam ne ku feebar pour bëgg a wér am ci boo xamee ne nii kuy loo bëgg a jot wala muy dàq loo xam ne danga bëgg mu sori la noonu lañ ko doon càmbaree ba soxla ya mat ñetti téeméeri soxla ak juróom-benn fukk ak ñett tombeeg juróom-benn fukk ñetti téeméeri yàlla ak juróom-benn fukk ak ñett yonent bi ñëw ne maa ngi leen di woo ci jenn yàlla rek joo xam ne su ngeen ko amee dana doy walis lépp lu dul moom te moom mantu doy walis dara li ngeen bëgg ci lu hut yàlla moom mat na ci moom lu ngeen a xam ci lu baax ci wiiw mu dencal leen ko lu ngeen xemeem di leen ko ñaanal mu fajal leen ko lépp nu ngeen nekkee fu ngeen man di nekkee xam-xamam hegg na ca kon kooku dong ci laa leen i woo loolu moo waral mu ne qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufaan ahad demeet ba loola jeex loolu nag muy xërëm yi ñu sampoon yëpp seen kosaan la mi ngi soqeekoo rekk ci bàmmeel yi mooy ne ñi njëkk samp xërëm di ko jaamu nit nitu ti yàlla noox ya dañoo demoon ba nga xam ne seen nit ñu baax ñu yàgg ña dem nañ ba màndi ci seen xol yi mëntuñ leen a muñ ñu jël seen jëmm ya yett ko samp ko ci seen bàmmeel ya ñëw nag tabaarakallaahu eh, di leen ni ziyaara si loolu mi ngi xewoon ca gannaawu nit yi eh, maanaam aadama yi booba noox ñëwagul bi nitu noox yi ñëwee nag gis xërëm yu samp yooya ñoom tamit xamuñ lu taxoon ñi leen jiitu woon sapp ko ñu mujj ñoom nag di jaamu loola euh, léegi nag kon loolu nga dégg mu ne euh, laa tasarunna alihatakum wala tasarunna wuddan wala suwaan wala yaxuusa wa yaxuuqa wa nasran wa qad adalu kasiran yooyu yëpp loola moo ko waraloon su ko defee nag moo tax bi yonent bi yàlla yónni ko ci wéetal euh, yàlla jéem a jëmbat xol Eh, doomaadama yi ci wéetal yàlla lépp luy waral ñàkk wéetal googa rek mu dégaase ko ne bu kenn demati ci bàmmeel yi di leen siyaara ji ndax mbooleem problème mu bokkaale gu ñu mun di dal ci lislaam mu ngi soqee koo rek ci bàmmeel yi ñoo ne doon leen siyaara ba ci yàgg moom tuñ koo muñati ñu yett seen jëmm ya samp ko ñooña bañ demee ba raaf niti noox ya ñëw xamuñ lu taxoon gaaya yett xiram ya ñi mujj ñoom di leen jaamu loola nit yi euh, maanaam saalixu ya ñëw ca loola continue ca nit yi luut ñaak seen góor jigéen ya continue ca nit yi Moussa niti nit yi yonentu yàlla Ibrahima nga ko bàyyam ba sax yaroon ko di asara fi mu jaar xiram ba daan ko ko yettaloo di ko ko doon jaayloo ji bu demee ba sori rek daane ko mu mujj mabbu mu ne da ngaa lambu yaa ngi nii ndax boobu daan jaay day wax ne ah, maa ngi jaay lu kenn bëggut maa ngi jaay lu amul njariñ maa ngi jaay loo xam ne maanaam ñàkk koo jënd moo gën jënd ko loolu ku ko wax ci sama marchandise du du jar maanaam te booba moom loolu la bëggoon ngir ñàkk jar ga su ko defee kon nag maanaam loolu ci la nekkoon indi ko ak lépp loo xam ne ni aju na ca ca wàllu xërëm ya moo tax mu tere woon eh, ñu ziyaara ji bàmmeel yi ba mu demee nag ba yëg ne roox yi màndi nañ ci wéetal yàlla xool yi tamit tàmm nañ wéetal yàlla gi cër yi tamit tàggatu nañ ca mu ne kon nag dem leen ngeen siyaara ji bàmmeel yi ndax da ngeen ci jëlee dëddug àdduna da ngeen ci jëlee fàttali ko ak dee ndax boo demee tiim bàmmeel da nga fekk koo xam ne booy jaay alal moo la ko xëppale woon fuuf booy jaay ndomba tànk moo la ko xëppale woon booy jaay taar moo la ko xëppale woon booy jaay kartan moo la ko xëppale woon boy jaay loo mana a jaay moo la ko ëppale tay nak deena na mënu dara xar nañu suusi suul ko ca loola lu sa xol dëgër dëgër dana am lu muy def ci yow dang ca jëlee dëddug àdduna dang ca jëlee fàttali ko àllaaxira loola muy nekk nag ab julit da koy jëriñ ab julit du dañ mukk di soxla lu koy fàttali àllaaxira ab julit du dañ mukk di soxla lu koy taxa gëna dëddu aduna yonantu bi nekkon kon nag yëg ne ñaar yi ma nga ca dem leen ngeen siyaara ji euh, bàmmeel yi kon timit xatte boobu ma wax la ko ci taxwilul qiblati wax la ci maanaam siyaaratul qubur loolu moo walaabul ci nikaaxul mutaati ci dagan gim njëkkoon a dagan mujj muharam mu xaraam ci xaybar jàllar bi ko ba fatxu màkka moom maanaam mu jàlla di ko xaraamaat ba fatxu màkka ba fatxu màkka jotee nag mu mujj xaraamaat ba péncam yàlla dootul daganati su ko defee loolu euh, borom xam-xam yi dëppoon nañ ci ulamaawu chia rek ñoom maanaam ñoo ñoo ñooy ci wàllu tabaarakallaahu lu ñu tuddee nikaaxul mutaati moo tax boo demee ci xurtu bi yu mu ne ay riwaayaat yu bëri dëppoo nañ eh, tabaarakallaahu ci jamono ja muy daggan waxoon na ko ak yi nga xam ne tamit gannaaw si gi dafa xaraam loolu mu ne riwaayaat yi ci wàcc dafa bëri yoo xam ne salaf ak xalaf yépp bokk nañ dëppoo ca xaraam nga su boobaa nag képp kuy gestu jëm ci di ko daganal ci rawaafid yi yow maanaam eh, bu ca bu ca bu ca bu ko gestu imaamu Shawkaani yi boo demee ci naylul awtaar wax na loola wane ne daal nikahul mutaati dafa haram. borom xam-xam yi d'accord nañ ci kon na nga tënkuwu ci seeni wax waaye bul ànd ak koo xam ne dafay nangu wala muy eh, manam wax ne manam nikahul mutaati eh, man na man na nekk su ko defee kon nag yow kilifa gi sharia may la nga mën a sa doom bul maye sa doom ci nikahul mutaati comme ni ma la waxee bul may sa doom mi ngi alal ku dul bul ko may ko xamee ni ab tuba baye ko fele ñew naan nangam ak nangam euh, dafa dafa bëgg tuup buru may sa dom ji ko xam la ko tax tuup moy soxna si yalla taxu tuubam nga wëru ndax soxna se tax bu do soxna si mu bëgg tak du tuub mukk ko ka deug deug ko maye sa soxna si man nga caa jëlee bakar bu la meuna yobbu safara ta su boba bo ci yaakaaree intérêt aduna te moy kër gum lay jëndal ak wala wut passeport yóbbu sa doom jeeg yooyu yëpp mu dem di la yónnee ay dépense li ngay lekk lépp ay xalu safara la ndax mën na la ko jural ëllëg ci yowmal qiyaam te nag ñi dëkkee ci tefes yi ci yenn dëkk yu bari maanaam jël seen doom yi may ko tubaab yi te wër na leen ne tuub gu ñu arrangé dong moo ca nekk waaye du tuub goo xam ne gu wér la tuub nga mënoo sangu janaba ñu ne tuub nga doo julli waaye nag fexé nañ rek ba jëndal lab xaftaan ñaw ko ñaw sénégalais nangam ak nangam mu commencé dem diko présenter mbokk yi jublu ci pour tour leen lëndëm pour sangé leen ko dama né yalla kenn mënu ko nax man nga jéem nax sa bop man na nax say mbokk wa yalla mom am njàccaar la mu kenn ta nax moy alimul ghaibi wa shahada kon su boba lola bari na lol motax genn goor dal ba sa mos ba waye ñewé ne ko man da kat tubaab bi dafa bëgg sama doom ji waaye nee na tuub na mu ne daal nañ ko dugal néegab góor ñu ko dugalee néegab góor nag ci laay mën a nangu nangu tuubam gi dañ ko waxee tubaab bi ne moom xalaatu du dugg néegab góor mu nekkoon kon kii tuubam gi wérul su ko defee kon nag yooye da cee jar a bàyyi xel ku ñëwati ne la dama bëgg sa doom ji wala damaa tuub pour takk sa doom ji nga ne ko dañ ko dugal néegab góor bu ko dugg néegab góor ba jaralee rek loola man na firndel na kon tubam goga ci l'islam ga jaral nako ko bala nga gis kum jaral nak ya naa ne boo yoroon dàll weñ da nga dox diko doxé ba mu rap to do gis ku mel nona kon nak yeen ñi may deglu dekk ci dekk yi nga xamne ne kuma ko tuddu waye yeen xam ngeen ko ñi may deggu xam ko ñom ngir yalla bu len jëndee seen intérêt aduna bu gatt bi ci njariñal alakhirah lu yaatu euh deug deug na ngeen doylo yalla yalla len won njëkk seen doom yi juddu euh, su ko defee kon nag dema dema dem ba sa doom ji toll ci fi ñu koy bëggee nga naan dama yaakaar moo ma yore dëgg-dëgg loolu gàtt xel la loolu tamit yab yàlla la loolu tamit ñàkk a xam sa bopp la ak ñàkk fonk sa lislaam la dañu ci bëri tey ñu ngi bàyyi seen doom ya ñi ànd ak tubaab yi ñenn ñi ci gën a sàggan sax tabaarakallaahu sëy nekkut fa bu fa sëy bee tamit ñuy wax sëy tuub ak arance yi ba tey sëy nekkut fa ñi àndi lambar lambar yi jëm ci hôtel yi léeg-léeg mu yónnee ko bi mu dem fekk ko ca bitim réew nga jël sa bët di ko ca tege yore sa kurus naan yaa ngi yore sa kaamil di jàng yow mooma li ngay jàng ak li ngay yépp dafay soppeeku lu lay rëbb ndax lu lay tere loola mi ngi ci alquran boo ko jàngee alquran rëbb la mooy la yonent bi woon rubba qaari in wal quranu yalanuhu kon nag gëm leen yàlla ngeen jël seen doom yi may ko doomi soxna yi boo lëggee ñu jural leen ñuy faj soxla waaye su ngeen jëlee seen doom yi le xañ ko doomi soxna yi bëgg koo may ñuy faj soxla rek su boo lëggee tamit doom ya ñuy jur dañ leen di fajal ay soxla su ko defee kon bàyyi leen sëyu intérêt yooya ci tubaab yi nga xam ne bëgguñu yonantu bi bëgguñu lislaam waaye dëgg-dëgg seen doom yooya dong lañuy soxla tabaarakallaahu yàq seen avenir sànni leen su ko defee loola lépp yow nga sànni xewale ci sa lislaam bi ñàkkaale ko ci yàqule ci sa njaboot yàqu ci boo lëggee mu jural la safara dama ne loola dara jarut ko ci àdduna bi sa doom bu ca bëggee dem sax nga ba nga tere ko mu nar a bañ boo xeeboo nga dogoog moom wan nañ yonentu yàlla noox dogoo nag doomam ju bon jooja di kanaan ndax doom li leen lëkkale boo nekkee ku baax mooy jëf ju baax rek bu fa jëf ju baax neexatu nag maanaam innahu amalu xayru saalih su boobaa dara neexatu fa nga ba ko rek te desee yàlla soo lëgee nga yëgal ñëpp xam ne lii neexut la woon yàlla xam ne tamit lii bëggoo ko da nga cee amul pexe bu mbugal may wàcc ci moom dong lay wàcc waaye nag nga d'accord ci mu la yónnee léegi-léegi mu wala téléphone jox la ay numéro yu gudd nga jël sa passeport wala sa identité dem tiire ji indi sa kër gi da yokkaat kook tabax kook def nangam lépp taxalal jooju xamoo lu fu mu bàyyi fu mu bàyyeekoo la ci soqeekoo loola lépp yaa ngi jënd sa kër ak safara kon loolu nañ ko bàyyi xel kum ci daloon na nga tas sëy ba te yemale sa doom gi sa bopp kum ci dalutoon na nga ko nanga ko wan gannaaw te sori ko bañ jëf ju bon jooju nga di ko def kon nag kilifa nga waaye booy kilifa mayal ku mayawu bul may sa doom yi ñu dul jullit bul may sa doom yi koo xam ne dafa tuub tuub ak kese ñi sabab ko xaftaan muy lëgër lagari gemu dara ci l'islam beugul yonentou bi xamul nit ñi sango janaba waye sa doom je ko tax dug ci l'islam tuub ga dafa ya dama dem ba bëgg tak sa doom bi doori tuub yàlla taxul kon li fofu tuub newu fa caaxaan rek fa ne lola motax yàlla ne wala tunkihul musrikina hatta yuminu texte la bu leer ci alquran muy wax jo xamne kenn mënu ko toxal kon nak lu yàlla tere boko defee bëgg ci nur ba dé ca dem sa dem safara yobale si doom safara te alquran neen ko qu anfusakum wa ahlikum naran kon nak tek len sen baram fofa fayu kilifa yu may deglu ma continuer ak yéen ci sey yi nga xam gannaaw bi nga nekké di kilifa timit nak l'islam dafa lay téré nga maye ci sa dom ji may am way dugul la nak ku ne man nga ko may lu ne man nga ca maye déedéet dafa am nak sey bu seyu sey bu takku bu ñu mëna mayé maye am bo xam timit duñ ca mëna mayé maye dinaa la euh, ñëwal lolu lu melni ni baara yego duñ ca maye lu mel ni nikaahu shigar duñ ca maye lu mel ni nikaahul muhrimi ko xamé dafa harmal duñ ko may jabar ko xamé timit tamit ko vérifier amna lu ëpp ñeenti soxna yo xamné gor lañ kooku lu mu bëri alal lu am am daraja desut ko may soxna loola lepp boko defé da ngay bokku ca ñu sukkatal moy yalla ga ca loola te loola lepp mën na dugal safara kon nak ngeen ñu ëlëk ci waxtu wi واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته